jàmbaar ci loolu waaye sant yàlla bu baax. yaa ngi jàmm maa baax a baax. waaw loolu nga représenté ci carrière bi. waaw man li may représenté mooy le président de benn de de Dakar carrière yi ndaw ndawaan yi nekk fii ñun ñëpp ñoo booloo boole suñu doole bokk ndey bokk baay di bokk lu ñuy xeex di bokk lu ñuy di bokk lu ñuy am. mel ni yi dañ leen a gis nga ñuy génn ci télévision yeeg réseaux sociaux yi di xam ne daf leen loolu moom lu am la ndax nit nee nañ bu jooyee rek am na lu ko tax a jooy ñun li ñuy wax nii dafa am lu tax ñu koy wax dañ di ndaw dëkk ci réew mi di doomu réew mi nekk sénégale comme sénégalais yi jël suñu alal ak suñu moyen ak suñu doole yor ko investir ko ci réew mi biñ ko investir ci réew mi taxes yi ñuy teg métti trop li ñuy taxes yi jafe-jafe métti trop suñu wàllu liggéey jooy nañ ko fu ne léegi nag suñuy njiit yi fi nekk di suñuy kilifa xaj na seen loxo dama jàpp ne dafa àggul ci kaw moo tax ñun ñu jël suñuy bon volonté taxaw di wax si suñuy jafe-jafe yi ñuy dund ndax ay doomu réew mi lañ ay sénégalais lañ moo tax ñu wax suñuy naqar yi nekk nii mu metti ñu trop muy lan suñu wàllu liggéey gàllankoor yi ñu teg xool nga fii ñu nekk nii di daan suñu doole gars yi fi nekk nii dañoo luye sax nekkuñu fi moomuñu ko sa yaakaar naa ne bu buñ demee ba ne sénégalais lañ yor suñu alal investir ko ci réew mi war nañ ñoom mën a jàppale jàppale gi mooy lan ñu wutal ñu ay plateforme yu ñuy liggéey di fa gaare suñuy oto ndax malien yi dëkk Mali sax daggal nañ leen ay gaaraas fii boo demee fii yoonu nga gis nga leen barki Dembo Ndiaye lañ leen daggal Sandiara. loolu est-ce du problème seen syndicaliste yi. non suñu syndicaliste yi man dama jàpp ne seen liggéey li ñuy liggéey dañ koo defut li ñu war a liggéey lañ liggéeyut ndax syndicaliste dafa am rôle bu ko war ci njabootam sa ñun booba léegi ñu ngi dund jafe-jafe gisuma benn syndicaliste bu taxaw wax ci problème mu chauffeur de benn de de Dakar. pont bascule bi ñëw na fi mu di jafe-jafe débat bi pooba pont bascule bi mënuñu ko bañ ñun ay doomu réew mi lañ lépp luy sàmm réew mi rek ànd nañ ci lépp luy defar réew mi ànd nañ ci ndax bi ñuy fal président Macky Sall dañoo am yaakaar ci moom kon nag yaakaar gi ñu am ci moom ñun sénégalais mooy liy avancé loo Sénégal c'est liy avancé loo Sénégal mooy liy sàmm réew mi kon luy sàmm réew mi ñun ànd nañ ci nee nañ dañoo ñëw pour sàmm réew mi muy lan tëli yi man tëli yi bañu ma ku ko sàmm mais dafa am norme boo xam ne noonu ngay sàmme doo lor saw askan mooy lan dañ na dañoo indi ay pont bascule pont bascule yi bañ koy indi waroon nañoo mën a waxtaan ak chauffeur yi ñaareel ba pont bascule yi ñu def ko ci biir carrière yi. ku sarse sa poids yéeg ci pont bascule bi bu poids bi ëppee pokale bi wàññi poids bi nga dogo yéeg tëli bi dem kooku mi ngi sàmm tëli bi mais defuñu loolu dañoo jël pont bascule bi dem ba ci kaw tëli. teg ko fa ci yoon ci angal ligne continue booy dugg ci dëkk oto yi xajuñu fo muy benn léegi boo sar sa poids nga daw 10 kilomètres ñëw ci pont bascule bi. 10 kilomètres yi nga jaar ci kaw tëli beeg poids bi nag nga ñëw ci pont Bassoul i continuer ñu peser boo pëloon vingt tonnes da ngay fay 20 tonnes yi continuer daw ci pont Bassoul bi dem fi nga jëm kon yaakaar naa loolu do sàmm am na loo xam ne nag buñ koy def pour defar réew nañ sooraale it njabootug mi li leen di lor ñun ay xale yu ndaw lañ ñii dañoo leb ci banque yi ñii dañoo dajale ba rayante ba am seen alal mënoon nañ koy yëg ci gaale yi mais defuñu ko dañoo toog ci réew mi investir ko ci réew mi kon président Macky Sall nañ jàppale jàppale ñu ñu mën a avancer ay doomu Sénégal lañ lii rek moo tax gars yi di mbëkk gaal yi lii moo tax gars yi di walanteeru di dem ñii borom société yi mujj yi jaay seen société yi lu mel nii la teg lay difficulté yoo xam ne doo dem ba attan ko da ngay mujj walanteeru jaay sa alal dem sa yoon comprendre nekk si leneen sa ñun ñi di sénégalais ku ci dem beneen pays ku ko ci ñam ñun ñi si jaar beneen pays boo fa demee da ngay xam ne doomu réew mi dañ leen di teg foo xam ne yow sax duñ la fa teg Sénégal rek laa gis ñuy jël doomu réewam di ko néewal doole di jël yeneen doomu réew di leen am fu ñu leen di teg fii rek laa ko gisee ci loolu la jooy mooy suñu métit daal loolu mooy suñuy naqar voilà. mu mel ni ba tey seen i problème bokk na ci manque carrière. aussi mhm. tamit fa leen taxaw ñu sabo leen. ak mhm. jafe-jafe yooyu noonu. waaw loolu lu am la. loolu moom lu am la. amuñu fi mu toll nii amuñu benn plateforme boo xam dañ fay gaare ñun sëfooru camion yi boo chargé carrière ñëw taxaw boo jaree dem sotti nga ñëw gaare fa bu subaa nga xëy amuñu ko amuñu ko loolu bokk na ci deuxième bi camion xajul ci biir kër tëli boo ci gaare boo taxawee ñu sabala ñaareel ba soog day am ñu ne camion yi ñoo gaare ci kaw tëli bi ba soog bi am sa camion yi. est-ce que waral tey état ni day xëy def benn genre décret mooy zéro heure la camion am droit dugg ci Dakar. parce que soog yi bari ñoo ma koy indi. waaw décret boobu moom ñu ngi koy wax benn sëfooru camion xëyul pour mbëkk nit benn sëfooru camion xëyul pour mbëkk oto. kenn ku ci nekk da ngay xëy pour daan sa doole ñoom ni ñuy xëyee di ñaan jàmm pour wàcc seen njaboot ñu noonu la ñuy xëyee di ñaan jàmm pour wàcc suñu njaboot mais nag li ñuy wax noonu li ñu war a def pour loolu mën a yaatu mooy ñu wutal ñu ay espace yu oto yi mën di gaare ndax tey jii bu dee yow mi amoo benn espace fii mën man déggaguma ba ma dalee xam-xame ba léegi fu ñu reconnaître garage boo xam ne dañ koo dagg plateforme pour sëfooru camion yi camion yi di ci gaare ku ci am sarse ji ko dem boo ñëwee gaare fa wala dara gisaguma ko sa maliens yi sax defal nañ leen ko pourquoi ñun mënuñu ko defal Baye Alassane Ndoye moo fi nekk comme syndicaliste Gora Khouma ñoom ñaar lan lañ fi nekkee ànduñu bàyyiwuñu sa ñoom ñëpp benn côté la ñuy défendre sëfooru sëfooru rek la ñuy défendre yaakaar naa nag ñi bokkub teen ñooy laxasooy goj mais dañoo war a xoolaat seen bopp bokk ndey bokk baay xam ne ñoom dañoo ñëw pour défendre sëfoor yi kon nañ booloo ba pare mais ñoom ku ki jaar fii kee jaar fe loolu mënul nekk sa nga jiitey mbooloo ñi ngi nii bi passé fee la Baye Alsaan Jaay góor xuma jaar ne pourquoi loolu sañu bokk lu ñuy xeex bu nax nit ñi bu ñu nax ñun dañuy sonn ci nax yi nañ xoolaat li ñuy def bu baax xam ne njaboot gi ñoo leen boole yilif nañuy waxtaan di déggoo di xàcceendoo di dóorandoo nakari nakari yooyu ak jafe-jafe yooyu moo tax na ñu jël suñu bon wanante di waxal suñu bopp suñuy difficulté yi ñuy dund ak yu metti yi ñuy daj pour président bi gis ko jàppale doomi réewam bu dee ñoom seen baat mënul àgg foofu. lay tàggatoo. waaw li may tàggatoo mooy di sant rek di sant bépp chauffeuru camion bépp chauffeur boo xam ne yaa ngi ciy jafe-jafe ñu ngi lay masaw di la baalu àq di xam ne nañ jàpp rek te bàyyi xooj bu dul jeex amul ñu ngi ñaan yàlla xaj na lii bu ci président jotee dinañu jàppale daggal ñu espace yoo xam ne dañ fay gaare pour mën faa nekk di daan suñu doole ndax ñii fi nekk ñëpp ngay gis ay doomu Sénégal lañ ay xale ndaw lañ yàlla may leen ñuy tës tës yi gëm seen bopp mënoon a yéeg ci gaal yi dem mais defuñ ko di liggéey di dajale ba yàlla may leen tey ñu am seen oto yor ko kon nañ leen jàppale jàppale ñu ñun ñëpp ñu mën a am fu ñuy nekk di daan suñu doole ñaareel ba pompe sul bii ñu def ñu xool nuñ ko oyofale handicapé na suñu liggéey yàqal nañu am na ñoo xam ne tey ñi nga am ay banque problème ndax lan liggéey bu doxul les banque a mënatoo cee génn kon président Macky Sall nañ jàppale nañ jàppale dañu sonn billaahi affaire dafa metti trop dañu sonn trop liggéey bi dafa metti ci ñun suñuy mbir lépp dafa yàqu sa ñun doomi Sénégal lañu war nañoo mën a jàppale xam nga nit nag moom sénégalais li ñu xam mooy nit ku fay ñun xeexuñu yàqu ñu oto si réew mi lañ dëkk mais dañoo jël suñu alal investir ko ci réew mi kon nañu dimbali na dimbali savoor yi sonn nañ tëli bi boo savoor yi fu ñu génn yaakaar naa ñoo kañ ak bëccëg yam dañuy tëlli tëlli rek kenn nawloon savoor ndayam ak baayam rek a ko bëgg pourquoi loolu sañ bokk ci réew mi doon ay doomu sénégalais mais nañ ñu dooleel Macky Sall nañu dooleel xam ne ñun ñoo ko faloon ñu ndaw ñii ñoo dooboon ci ginnaawam di ko wooteel gëm ko kon bu mu fàtte loolu nañu jàppale ñun xale yi dañoo war a jàppale daal